non Sénégal neex na nag Sénégal neex na nag Sénégal neex na chambre de commerce de Dakar budget de fonctionnement trois milliards te gisuñu looy def ci fonction yow defoo dara wut sa pliant bu nooy tëdd ca yaag say gaay yenn paa yi ñëw war la bu ngoonee bu at mi jeexee ñu wutalaat la beneen budget trois milliards kooku noo fay jógee sëñ bi odo Sonko du nit nee na woon nee woon na système bi système bi lu Macky Sall kese système bi pale moo ci gën a tuuti te ñii ay chambre de commerce dañu nekk ay bànqaas yoo xam ne dañu dansé bari na lu président ji jël da ciy déggoo ñoom surtout Macky Sall mi fi nekkoon ci yépp ñaawteef nag laa la wax yépp parce que ci opposition lañ tàmbalee kumpaloo ak moom yokk dund bi ab Ablaye Wade nekk fi ñu yokk dund bi ba Macky Sall toog ñu wàññi dund bi récompense nag li leen Macky Sall defal bàyyi leen ci chambre de commerce yi su ñëw élection ñu ne élection du fi amee Macky Sall ci ñoom la gisee randal élection bàyyi ay cinq ngi nii nangu ñëw organiser ay élection sëñ bi xeex bi xeex bi xoolal du jële fi président rek xeex bi du jële président xeex bi daf ci bokk paay yi ci boppam ñu wax ak ñoom ne leen réew yi moom leen ko bànqaas yi moomu leen ko gis leen fédération football bi ni ko def gisoo leen ko yooyu ñoo am fépp ba ci chambre de commerce yi looloo ci am barki alxuraan dinaa leen indil yeneen commentaire yoo xam ne gars yi dañoo xam paa dañoo xam paa bu baax a baax paa dafa bari ay défaillant paa xaaj bi ay défaillant lan ay sàcc lañ aussi